as gor la nit ku bax la yag na ko xam lepp lo xamne su ngeen ma gisee gis ngeen ma war ngeen ma ko defal ni ngeen ko defal la laat xam lool suma ñew suma su ma duma fi ñew laat xam nga ma yag na ñoo xamante <laughs> baax na jërëjëf waaw. digeen ñi ak ñu fi fekk di nuyu Dame ngay mi nga xamne ma ak mom ño ñoo nek PDS di yëngu lim wax leer na. nee na fas na yéene jàppale ma waaye yéen it na ko na ngeen ñu jàppale moom xëy na ñoom amuñu kandidaa moo tax mu ñëw jàppale ma mais suñ daam ñu ngi lay tàllal loxo di la wax ni nga gën a jàpp ci liggéey bi mais mën naa laa dig ndox tiwo mën naa koo joxe li jëm ci wàllu tiwo yi suba saaliw nang ko jël boole naa la ak ramatulay Guèye na la ko jox biñu ñew fi nak dañuy wax ne ben candidat lañu am muy président Macky Sall. kon tay bu bëggee ñew ne ab mourid la ta doon bañ mbacke xana tay la de ngeen bu yagul mu wax fi makka ak bakka bu len ko makka ak bakka makka buñ ko waxee moy ñun ñun julit yi fañu jëm dem di fa siyaare ji bakka ko mooy ña nga xam ne du ñu jullit fa ñu jëm di fa siyaare ji mu ne ñoom ñaar ñooyam loolu lu garaaw la loolu moo ko wax te yàggul fii sëñ Mourtala jox na ko mbubb mu delloo ko mbubb ma ñu jox ko président Macky Sall mi ak moom kaala gi ngeen gis kaala gi ngeen gis président Macky Sall di ko kaala woo fan yi moog yére yooyu ñoo àndoon kaala ga moom la président Macky Sall di kaala wo vingt ci élection bi mu nekkee élection présidentielle moom la yoroon saa yu dem élection bu ko seetloo kaala googu lay teg ci baatam. mooy googu muy teg ci baatam kon nag bi mu ñëw tubaab moom la kaaloo gis ngeen ko. di bañ màggal di bañ màggal di bañ gàmmu te ñun màggal lañu am ak gàmmu seede yàlla. keneen kii moom la ñu tuddee ma dikkee moom dama koy xob ma ne ko ma dikkee dikkoo de dikkoo <laughs> ndax bu dikkoon li ko président Abdoulaye Wade defal lépp président Abdoulaye Wade du ne ko xaaral ma ñëw ñu waxtaan Abdoulaye Wade du ne ko ma ñëw rek ñu waxtaan. mu ni ko du la xaar ñi wax wa bokk PDS xamnañ lima wax te mom bi Karim wad di nek ci jafé jafé mom mo doon avocat Karim wad lu tax mu genn tiital na nit ñi kon lolu na ngeen ci baxel président abdou wad nak de ngeen ko neena nak bu kenn wote ji meena dimbali leen ñu ngeen woteel président Macky Sall ñun duñ ko xass ndax mag la dañ koy respecter ndax ancien njiitu rew la dañ koy respecter ndax sunu mbokk la mais du candidat kon candidat bi président Macky Sall la taalibe kon na ci ñëpp jàpp ñu ngi leen di wax ne ñu ngi jéggulu danañ leen wax suba li jëm ci ndox mi bàyyi mbeng nañ leen ko jox ngeen dugal ko ma ñëw inaugurer ko rapidement avant élection. ak mobilisation bi on peut dire que Darou Marnane a choisi pour voter pour le président Macky Sall. le président Macky Sall moomu ñun ci réew mi lañ dëkk amuñ beneen nationalité en 2012 boo demaan ci marché yi bala ngaa dem dangay ngay waajal leen diggoon lañ leen waxoon ci Macky sàll ñu arrêté xool lan la ca matal ak lañ moo ca des. fii sa tànk fii koy tàmbalee ñun de koñ bii ceeb màggal dañ ko daan financement dañ ko daan dégg a ah, liggéeyu ndaw yi dañ ko daan dégg ndax ceebu màggal déggatuñ ko dañ koy gis financement yu jëm ci jigéen ñi déggatuñ ko dañ koy gis bale yii jigéen ñi naa ko doon cotiser réalité la léegi communauté mouride deseratuñu dara kon Abdoulaye Seck ñun ki ñuy wateel mooy ki Sëriñ Mountakha Mbacké gërëm ki mu sant kanamu ñëpp kon nag kooku mooy le président Macky Sall moom laa leen joxoñ yéen waa Seexaw gi ñu ànd ak moom voteel ko mu am deuxième mandat incha allah. ak gën fee jege Serigne Touba ñu ngi koy nuyu. di ko jox sunum nuyoo mu yóbbul ñu ko ci loxo kalifa général de Mouride Serigne Mountakha di ñaan yàlla yàgg ko suñu kanam. xay bu ngeen jógee def ku ne am naa lu ma naqari ngeen seeti ko ñëpp comme lu leen naqari ah bu subaa dafay lu ma naqari. <laughs> non suba damay am lu ma naqari kon samay tànk day métti na ngeen ma seet <laughs> il faut ñu arrêté yooyu mënuma comprendre ay nit di takk seen ndigg di fanaane daw di yendoo daw lekkuñu ñu eh, alxamis mbooleem ñi nga xam ne defoon na ko ci parti yu bari danañ ñëw démissionné ci parti yi alxamis insha allah kon kenn newu fi ñun ñoo fi nekk ah, mais buñ fi nekkee ba noppi di yàq suñuy diggante amul njëriñ may wax gouvernement Sénégal ak yoon nañu jóg xool loolu lan la ndax fii ci Sénégal yéen dégg ay nit ñoo jógoon ne président Macky Sall du campagne kon bu campagne ñu kar ay cortège am war nañoo xool lan la ndax maa ngi koy wax ne ko moom comme du candidat ana mooy candidat président Macky Sall mooy daal bi gën ci candidat na ko jàppale maa ngi wax président Abdoulaye na ko demal jàppale Macky Sall mu gañe ñu defar gouvernement bii ñu jëm ñu fexe ba nga xam ne moom na nekk ak président wa Macky ca biir pale ba mu koy conseil te gëm nañu ko kenn newu fi ñun rek ñoo fi nekk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ak ngoon ñuy toog di waxtaan as gor la nit ku yiw la kon yéen ñi fi nekk maa ngi leen koy bàyyiloo xel lu yàgg-yàgg bu ma dégg ñaar yu génn te lu leerul bu ci dugg bul wax ci lu leerul duma wax lu ñaaw kilifa ndax sëñ Saaliw moo ma yar benn affaire rek laay wax ci coow yi xew ci réew mi mooy li ñuy wax élection bu mu am nañu lakk urne parce que président Ablaye Wade sunu waajur la mag la duma ko wax lu ñaaw ndax mag la duma ko wax lu ñaaw parce que ancien chef de l'état la duma ko wax lu ñaaw parce que ñoo bokk doon taalibey Serigne Touba waaye nag maa ngi koy ñaan mu def ni Serigne Birane mii def ñëw jàppale président Macky comme amul candidat na ngeen dem wote ji door a ñëw. ñu sécuriser wat bi parce que xam nañ ne dañuy gagné Touba. sant sama équipe bi ma fi am yëpp Modou Lo ñoom di sant Cheikh mbay di sant Bas Mbuub ci taxawaay bi ak ñi fi nekk ñëpp Assane Mar bàyyuma kenn mais góorgóorlu leen gën a taxaw madame ñaan ñi ngi leen di sant di leen gërëm ñi ngi jégalu jërë ngeen jëf jërë ngeen